xam nga loolu loolu loolu loolu andi woon ci tawfeex ji nag moom ñun ñii moom moom Hizbut Tarqiyyah ñoo ko bokk. ñun tawfeex ji nag moom Hizbut Tarqiyyah ñoo ko bokk. ñoom dañoo dañoo am tawfeex rek. dañoo am tawfeex rek. tawfeex sëriñ bi rek dañoo am. tawfeex sëriñ bi rek dañoo am. Riyad nag da ci am xaas. Riyad nag da ci am xaas. moom dafa def ci moom loo xam ne. suñu borom moom loo xam ne ñëw na néew na ñu ngi ko def ci ñu ngi ko def ci ñoom. loolu moo waral nag. loolu moo waral nag. dañ ko doon liggéey noonu bi liggéey bi noppee. bi liggéey bi noppee. moom sax. moom sax. yëg na ko yëgu ko. yëg na ko yëgu ko. dafa ne fi ñu toll woon. dafa mel ni fi mu toll woon. li weesu gisatu ci woon dara. li weesu gisatu ci woon dara. ndax fa fa fa fa fa bu métti bu rëy. ndax fa bu métti bu rëy. fas yéene gën a liggéey Sëñ Tuubaa. fas yéene gën a liggéey Sëñ Tuubaa. foofu la demee. foofu la demee. nga xam ne yàlla moom day ful jëf. yàlla moom day ful jëf. te jëf te waaye day fay yéene. waaye day fay yéene. kon yéeneen jooju. kon yéeneen jooju. da koy boole jëfam jooju. yàlla da koy boole jëfam jooju. fulal ko jëf. fulal ko jëf. fay ko yéene. fay ko yéene. kon dañu aatoon ngoog. kon dañu a des. ñun ñi ma àndaloon nag moo ci des. yéen bokk tawfeex bi. du ma dolli du ma leen du ma dolli ci yéen dara waaw ah, loolu. ren dolli ci ñun dara. xanaa xanaa xanaa xanaa lu mel yaar. xanaa lu mel ñaar yaar. nasu gi am na ba am na ba waaye la ma cee bëgg nag muy gën a nasu rek. waaye la ma ci bëgg nag muy gën di nasu rek. da ca des da ca des nag. nee na la ca des nag. mooy am kilifa. mooy am kilifa. bu mat kilifa. bu mat kilifa. suñu yaatu kilifa la woon bu mat kilifa. nee suñu yaatu kilifa la woon bu mat kilifa. waaye sëñ Youssou Diop mii. waaw nee na sëñ Youssou Diop mii. bu ma gisee sañu at. bu gisee sañu at. damay gis sañ yuusu ci biir. day gis sañ yuusu ci biir. bu ma gisee sañ yuusu. bu gisee sañ yuusu. damay gis sañu at ci biir. day gis sañu at ci biir. yuusoo ngoog. pour yuusoo ngoog. jërëjëf nag moom kenn ku ne. ci yéen. yéen ma ca def nag kenn ku ne ci ñun. am nga loo xam sa bopp. am na loo xam ci sa bopp. am nga lu la lu la lu la indi woon ci am na lu la indi woon ci su xarale. loolu nag. moom na nekk ci kanam rek. na nekk ci kanam rek. kenn ku ne ci yéen. kenn ku ne ci ñun. loolee. loolee. bu fekk na ko ci kanam rek. na ko teg ci kanam rek. bu mu nangu dara jaar ci diggante. bu mu nangu dara jaar ci diggante. te bu mu bu mu bu mu nangoo taxaw. bu mu nangoo taxaw. bu mu nangoo geesu. bu mu nangoo geesu. na wéy rek. na wéy rek. bu bu dëggoo rek. bu dëggoo rek. dañ koy wommat. dañ koy wommat. loolu ñàkkul ngeen ci xam. ñàkkul ngeen ci mos du ngeen ci ñàkkul lu ngeen ci mos ñàkkul ngeen ci xam. nee na ñàkkul luñ ci mos ñàkkul luñ ci xam. yoon waa yoon waa ngoog. waaw yoon waa ngoog. waaw ah, jëmmi mbooloo mi moom. waaw jëmmi mbooloo mi moom. na na gën a nasu. na gën a nasu. nañ gën a nañ gën a am kilifa te gën a nangu seen kilifa. nañ gën a am kilifa gën a nangu suñu kilifa. ngeen ko defee rek. nee na bu ñu ko defee rek. day day gën di yomb rek. day gën di yomb rek. waaw oh, ndax ndax womatu rek la. womatu rek la. ne wax <laughs> ginnaaw ginnaaw dañuy wommat nag. ginnaaw bi mi ngi ci suñu nopp suñu bakkan. na nas gaa ngi suñu bakkan. na los bi yorom rek. na nos bi yorom rek. yolemee rek. na los bi yorom waaw bu bu rek. da def li bëgg. da nga def li ñu bëgg. te doo sonn. te doo sonn. kon moom dama la def maa ngi sant bu baax maa ngi sant bu baax mbokk yu baax. ñu ngi sant bu baax mbokk yu baax. bu baax a baax. sant bu baax a baax. xool rek seen ñoom seen tubaab. xool ci ñoom rek seen tubaab. na ma ko daan waxee rek wax naa ko bu yàgg de. na ma ko daan waxee rek nee na wax na ko bu yàgg. moom ay sang laa leen def. moom ay sang la leen def ñu bokkal sëñ Tuubaa ay sang laa leen def. ñu bokkal sëñ Tuubaa ay sang la leen def. moo xam dañu dama moo xam moo xam moo xam dama leen a jur. moo xam dafa leen a jur. moo xam wala dañu ma leen a jural. moo xam dañ dañ ko dañ ko leen a jural. ñun ñëpp lay boole. ñun ñëpp la boole di xool sëñ Tuubaa ci ñoom. di xool sëñ Tuubaa ci ñoom. kon maa ngi sant bu baax. maa ngi leen di sant bu baax. Mamadou Seye ñu ne la ñu ngi sant bu baax. di ñaan bu baax a baax. di ñaan bu baax a baax. taw bi ji am.